bi la mooy taxawaayu syndicaliste yi si wàllum immigration clandestine bi. waaw ñun syndicaliste lan moo si suñ taxawaay moo taxawaayu comme taxawaayu euh, waajur la taxawaayu kilifa la taxawaayu kuy war alerte alerter wala sensibiliser yokk sensibiliser parce que phénomène immigration clandestine dafa doon fléau boo xam ne société bi yëpp la laal société yëpp la lëmbal lu métti la parce que y a mort d'homme y de ñi si génn àdduna yëpp. lii frange bi nga xam ne moo ëpp doole mooy jeunes yi ñoo si ëpp te doon day doonoo xam ne ñun en tant que syndicaliste en tant que père de famille dañ si war a alerter dañ war a informer war a sensibiliser jeunes yi parce que dem baax na dem neex na mais pour dem dafa am si ay conditions war a dem ak li tax ngay dem tamit te kuy dem tamit day fekk nga jël yoon bi nga xam ne mooy tax du du noonu nit ñi duñ ko considérer comme suicide. pour yow lan moo tax jeunes yi motivé pour dem. waaw causes yi bari na causes yi bari na bon ñu bari boo dégloo ñi nga xam ne dem nañ ñëwaat dem wala ñi nga xam ne bëgg nañ dem dañ naa réew mi dafa métti damay dem pour tekki damay dem pour defaral sama yaay su pour parce que damay yeewu si kër gi ma dara sama bopp ma dara samay kilifa kon ce qui veut dire que on a échoué wala ils ont que sur le plan emploi formation ak éducation il a un échec de nos politiques de jeunesse surtout d'emploi donc jeunes yi li leen di yóbbu tamit am na loo xam ne c'est le rêve c'est dinañ gis seen naataangoo joge bitim réew ñëw sur le plan sociale mu am benn ascension bi yooyu yëpp day bu la fekkee liggéeyuloo wala fi nga doon liggéey liggéey bi arrêté na amatoo liggéey économie bi daanu na dafa doon phénomène yu bari yuy dajaloo yoo xam ne mooy pousser nit ki à ce que mu dem li tax nag ñuy jël yoon bi metti na parce que li ñuy wax naa pesanteur sociale dafa am ay éléments yoo xam ne ñun suñu bopp ñoo ko teg suñuy ndaw ba ñu tax ñuy dem parce que boo yeewoo ñu ne laa tekki woon dara amaloo kenn njariñ da ngay dem ba yow da nga naan li nga naan da ngay jéngu pour dem ñafe ji ñëw ñëw teral yaay si kaw jéngu ji boobu mooy tax ñu nit di jël risque parce que jël géej gi dem bi même boo doonee ko xam géej wala ku mën géej risque la saakaatuma nga kay dem sans nga jël toutes les conditions de précaution wala voyage bi ñu jël matuwaay yi si pour moins pour qu'il y de disparu góor gi ana booy ay fan yu néew dañoo dégg benn maladie mystérieuse bu ñëw si géej ba ay yenn mool sax gis nañu seen kan dafa am ay picc ba tey kenn xamul maladie ban maladie la ñun ñun lay laaj la mooy sa jàngat si maladie bi. waaw jàngat bi si ñëpp am la parce que dafa doon loo xam ne ñun ñëpp la bett si euh, y en a même qui ont dit que c' était une maladie mystérieuse mais du mystérieuse parce que suñu gëstukat yi suñu nos hommes de santé waa ministère de santé et de l' action sociale institut Pasteur ñu ngi siy gëstu. district sanitaire yi ñu ngi xool bi fe maladie bi feeñee ba léegi Thiaroye je crois que Thiaroye sur mer lañ njëkk a gis les premiers cas après on a parlé de Rufisque le long de la côte si ba di Joal feebar bu bu jaaxal ñi ni la jaaxalul ñi ni mais comme analyse yi ñi ni commencé nañ ko def kon dinañ xam dinañ yaakaar ne dinañ am lu koy faj mais li jaaxal ni ni mooy lu tax mu dal ñi demoon géej rek parce que doy na waar soit lu ñu lekk la wala lu leen laal la wala loo xam ne dañ leen ko këpp certains parlent de de de de quelque toxique de truc toxique mais dañuy xaar ba résultat yëpp mat ñu soog si mën si annoncé wu mais lu doy waar la parce que comme arif dañu mujjee yóbbu leen nga na lu Diouf pour traiter leen fa boole leen fa pour jéem a canaliser maladie bi mais c'est inquiétant inquiétant nan nga gisee li ñu mel mooy gestion ak gestion ak infrastructure mairie de Rufisque ak ban jàngat nga si am. bon gestion municipalité yi c' partout Sénégal ah c' est partout communes yi municipalité yi parce que dafa doon loo xam ne c' est pas facile lii dal Tëngéej moo dal feneen mbaaw ak kii te municipalité yi surtout yu mel ni Tëngéej yu si bëri même bu ñu amee yenn budget on parle de milliards c' est des c' est yoo xam ne. j'ai consommé plus à ci fonctionnement ak paiement salaire que qu'à l'investissement donc ñun war nañ revoir comment gérer nos mairies loolu moo tax incompréhension day am entre l'édile le maire de ville et les populations ak ses adversaires quant à la gestion municipale il y a trop de problèmes il faut que ñu commencer li ñuy wax ci kaw avec l'acte 3 de la décentralisation avec l'autonomie avec les mairies entières yi nga xam ne war nañ mën a demal seen bopp ñoom rek il faut ñu revoir avec la gestion participative parce que une municipalité tant que associé wuloo les populations dans la gestion tu auras toujours des problèmes et d'incompréhension dans dans dans la compréhension de l'utilisation du budget parce que suñu mairie yi suñu municipalité amuñu moyen mais les moyens ça se ça se recherche yow yaa koy créer yow yaa koy outil yow yaa koy indi ba pare dugal ko fi mu war a dem. ni néew gis nañu tamit euh, poste yi ay détournement d' argent di mel ne agent de poste yow en tant que syndicaliste bu nekk poste loolu ban jàng nga si am. détournement bon ça ça se passe partout quand vous avez parlé de la poste moi je suis postier ça me mal que nga yow la presse di si épiloguer wala di wax parce que quand on parle de détournement parce qu'on a touché. soit l'argent du contribuable les les deniers publics wala xa alalu institution bi la ko dénk ça se passe dans toutes les institutions malheureusement entreprise bi ma ne c'est une entreprise publique moo tax boo fa laalee xaalis wala yu mel noonu bu fa amee rek dafay doon lu rëy comme bu amee tamit ci maire yi wala ci administration mais pour dindi ko wala pour wàññi ko tout tout la loi lépp def nañ ko lépp man mat na mais nit moo doy waar nit moo neexul a moo neexul a mais man nañ ko wàññi ba du am wala buy am tamit dinañ ko teel a gis parce que y a des corps de contrôle par exemple man fi ma nekk rek laa mën a wax am na ay comme ni état bi amee ay corps de contrôle IGE Cour des comptes xam nga OFNAC yoo nga xam ne tout teg def nañ lépp ba nga xam ne ne képp kuy am njort wala ku def dinañ ko mën a xam wala ñu teel ko alerter ñun suñu entreprise am na ko mais nag lépp li nga teg rek nit doy na waar wala nit am na pexe wala nit dara dina ko dugal si mu def loo xam ne lu yoon d'accordu ci ba yegg si détournement mais ñu ñuy ñaan daal ni loi bi taxawee sévère pour sanctionner na entreprise bi wala administration def loo xam ne day protéger parce que man syndicaliste la ki détourné l'entreprise daf ko war a ba du détourné comment protéger ko quand c'est la formation ñu teg loo xam ne gën a dolli si li fi am yi nga xam ne day tax nit ki dina xam ne du mën a am temps di jël par ndànk-ndànk ba mu doon des millions bés bu ñu ñëwee contrôle parce que contrôle bi si c'est permanent nga xam ne régulière ba pare avec les nouvelles technologies de l'informatique et de l'électronique numérique bi fi ñu toll nii mais tu peux toll mën nga nekk Dakar di contrôle ku nekk Fongolemi s'il y a un réseau bien établi quoi. nañu sax góor gi du mel ni ay euh, entreprise yoo xam ne dañuy jël du defar contrat dañuy jël ay journalier yow en tant que syndicaliste lan lan moo war a nekk taxawaay ba entreprise yi defal mooy ndaw yi xam dañu fay daani seen dool ay contrat li ma lay wax rek sànq si njëlbeen si immigration mooy politique bi politique de l'emploi bi nga xam ne ça a ñi ko ñenn ñi ñu comme man mii ñu bari ñu ko gisee qu'on a qu'on a échoué parce que politique de l'emploi day tax ba day imposer les entreprises publiques comme privées à ce que qu'ils recrutent wala qu'ils prennent en charge la formation formation dafa doon loo xam ne dafa am pratique ak théorie théorie bi li koy tax mu nga mokkal ko wala njàng yi tax nga sawar si wala nga am si yenn connaissance il faut nga def la pratique dans les entreprises par exemple boo dem si yenn pays développe bi si sa cycle de formation il faut des stages yoo xam ne day compléter day matal formation bi yooyu nag entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo signé ak l'État ak les grandes universités les instituts yooyu c'est impératif il faut que celui qui est formé mën a dem sur le terrain de formation loolu foofu bu amee rëq-rëq rek formation stage yeeg contrat yi day wàññeeku y a des contrats yoo xam ne prestataires yi la ak les yoo xam ne code du travail permettre na que si ça se passe normalement beaucoup de jeune sénégalais dinañ mën a am stage lépp daal waxtaan la ak relation entre le patronat l'emploi et l'État si s'il s'organise si li ñu fi teg yëpp normalement avec le ministère formation de l'emploi et de l'artisanat ak ministère jeunesse ñoom ñëpp bu ñuy collaborer normalement mu yoraa moins de jeunes jeune ne dirais pas bi dina wàññeeku mais je ne dirais pas que ñu bari duñu am ay soucis yoo xam ne dinañ fi naa amul fii dara lu may def quoi parce que sérieusement entreprise publique yi rek waroon nañ mën a absorber lu bari si ay prestation de service noonu laa gisee. lan mooy sa mot de la fin mooy kàddu gu mujj gi waa Leral point net Leral TV ñu lay sant di la gërëm nangul bu ñu nangul si taw bi la mooy kàddu gu mujj gi. waaw man dam yéen laay gërëm parce que li opportunité boo leen ma may en tant que citoyen en tant que syndicaliste parce que man je suis secrétaire administratif au syndicat libre des travailleurs du groupe La Poste. foofu laay liggéey je suis chef de section au centre de tri postal à l'aéroport international Blaise Diagne parallèlement je suis activiste dans le milieu euh, de l'écologie je défends la nature ma maa ngi agir maa ngi yëngatu mbaaw si forêt classée bi défenseur yi si laa bokk c'est ak le marigot de mbaaw je je suis aussi parallèlement président du mouvement Bëgg Tëngéej mouvement citoyen moo xam ne mu ngi yëngatu Tëngéej tey on a ambition de descendre sur le terrain pour les élections locales yi ñëw man daal damay def lu dul gërëm Leral TV di doon loo xam ne dafa yokk ci couverture médiatique sénégalais te di ñaan mu doon ay un grand groupe te incha allah dina ko doon.